alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala dalin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim yaa himmata sayqi udrina bi hada almahdari wal taxti fi min afra tatlana bi safar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di sant yàlla bu baax waxtaanu tey wi nag waxtaan la woo xam ne dafa jëm ci ci suñ bopp waaye jëm ci ci suñu ay frère ci suñu ay nijaay ci suñu ay mag ci suñu ay rakk suñu ay tànta suñu ay jarbaat yu góor yu jigéen jëm ci suñuy yaay jëm ci képp koo xam ne dafa bokk ak ñun te nekk bitim réew man Cheikh Omar Diop ci domaine bi ma nga xam ne ci laa nekk di ci yëngatu di ci liggéey waaye yàlla dogal ma bari lu may jokkoo ak nit ñi nekk bitim réew bëri ñu may wax seen bopp di ma wax seen soxla waaye di ma tawat li nga xam ne moo jëm ci seen wàllu avenir ma nekk koo xam ne sama liggéey may na ma ma am xam-xam ci loolu te it am ci expérience boo xam ne pas mal ay at def naa ko ak ñoom bientôt mu def vingt ans man ak ñoom kon am na lu ma xam ci seen ay activité am na lu ma xam ci seen économie am na lu ma xam ci seen avenir loolu yëpp tey lañ bëgg a tënk waxtaanee ko euh, li nga xam ne nag mooy wàllu immigration bi dañuy wax ci ñetti pàcc yi ñetti xaaj lañ koy def ba ñeenti xaaj bi ci jiitu mooy ki nga xam ne dafa dem émigré émigré ji li ko tax a dem émigré ji danañ ko waxtaane ak ki nga xam ne dafa dem émigré ji yàlla may ko wërsëg mu am ko foofu naka lay def ba wërsëg woowu nekk lu sax ci moom waaye nekk loo xam ne dafay jot càkkutéefam wala mu am li tax mu doon ut wërsëg woowu waxtaanee it li nga xam ne mooy ki nga xam ne am na ay mbokk te nekk mbokkam mi mbokkam yi nekk ci biir réew mi moom mu bàyyi leen fi dem bitim réew ana ban taxawaay la war a am ci ñoom ak yi lan moo ko war ci ñoom fi ñuy tëjee nag mooy immigré yi nan lañ war a def bàyyi kenn xel ci xam ne demuñ pour ñibbi waaye dañoo dem pour tukki dañoo war a wàññeeku si ñeenti tomb yooyu yaakaar naa ne buñ ko waxtaanee émission bi dana daal di jeex bi ci jiitu mooy immigré bi nga xam ne mu ngi dem dem immigré ji lan moo ko tax a immigré ji mooy am alal mën a dimbale ay mbokkam mën a taxawal foyam mën a réussir ci avenir am ci ah, li nga xam ne moom mooy dundam ñu gis ñu bari ñoo xam ne dañuy tukki <clears throat> bu ñuy dem di immigré ji préparation boobu dañ koy raté da ngay gis nit ñaa ngi dem rek nga jóg rek de damay dem yaa ngi dem mais war na am objectif bu tax ngay dem am na ñoo xam ne seeni mbokk ñooy jaay seeni kër cotiser leen ñu dem bu ñu yeggee ñu ñu ñu jàpp leen otage ci kër googu ñu jaayoon am ñoo xam ne dañuy jaay seen takkaay jox leen ñu dem ñu jàpp leen otage ci takkaay yañ jaay bañ dem la leen war duñ ko def wala bu ñuy def la leen warit du jeex mukk te loolu yëpp ay tomb la yoo xam ne bu ci nekk war nañ ko faram nit ñi nag doomu aadama yi nga xam ne. ñoom ñoo nekk ay sénégalais ba pare jugee senegal dem bitim réew kenn ku nekk ci ñoom war na bàyyi xel ne moom rekk la senegal di xaar ci xaar ci réussir moom rekk la senegal di xaar ci développer moom rekk la Sénégal di xaar pour ñi koy raw mu dab leen te gis naa ci ñoom benn wàll gi yàlla dogal na dañuy yónnee lu bari yónnee boobu ñuy yónni incha allah loolu danañ ko leeral ci kanam nga xam ne tey nit ki su fekkee ne mu ngi jóg pour tukki dafa war a waaj wàccaay yu muy waaj pour tukki mooy psychologiquement dafa war a pare am ay objectif yu tax mu tukki mu mu mu planifier temps bi muy war a def bitim réew pour bu échegee bu réussir yépp dafa war a def retour vers son pays parce que nit ki carrière am dafa limité wu nit ki bëgg a réussir dans sa vie war na mën a planifier carrière mu ne man kat dinaa fexe dans dix ans ma def ko Europe pour am départ def retour ñëpp ci sama réew investir sama réew pour développer sama réew pour mën a tamit espace bi ma fi bàyyi mu espace vide bi nga xam ne maa ko occupé woon ma mën ko remplir ma mën a taxaw taxawaay boo xam ne dina nekk un vrai sénégalais un vrai patriote mais ñu gën a bëri ci immigration yi dafa mel ni dañoo daw te loolu nekkut loo xam ne dina développer réew mi nekkut loo xam ne dina dimbala senegal kii war a dem pour tukki kooku buy tukki war nañ koo wan ne ko tukki bii ngay tukki am na lu tax nga war a tukki mooy nga ñaan yàlla yàlla may la réussir yàlla may la réussite nga yéene mankat kat sama famille wala sama yaay wala sama bopp ah bëgg naa doon kii wala bëgg naa am lii xaaral ma dem tukki ji su ma yàlla may départ ma ñëpp si sama réew pour mën a invertir pour mën a continuer am na ñoo xam ne loolu yëpp du leen ci fekk dañuy am occasion dem seen morom yaa ngi dem ñii ñu ngi jaar ci mbëkk mi ñii am nañ possibilité fay xaalis ñu utal leen ay visa ñi am nañ possibilité demande de visa ñu may leen ko par la voie legal waaye ñoom ñëpp nag ñu ci gën a bëri bu ñuy dem duñ planifier seen avenir loolu la tax nag man ma man seex Omar Diop ma leen di wax ne c'est pas trop su fekkee xas nga dem bitim réew te planifier sa avenir planifier utul programme ba nekk nga bitim réew yaa ngi liggéey li waral nag ñuy liggéey mooy deuxième point bi may dugg si nii ñu ñuy liggéey te duñ am rendement ci li ñuy liggéey loolu ñàkk a waaj bi moo ko indi le et des déjà parti maanaam dem nga bitim réew waajuloo yaa nga foofu di liggéey comment tu euh, comment tu fais pour nga gagner sa vie ci ci Europe wala ci foo munti nekk ci àddina mais nga réaliser sa avenir nga réaliser li nga xam ne moom ngay am réalisation yooyu nag. mooy deuxième tomb bi parce que da gis koo xam ne day liggéey su liggéeyee ba yàlla dogal mu am xaalis famille bi mu bàyyi ci Sénégal ñoo koy njëkk rey famille bi yëpp ay démissionné ci seen ay activité kenn dootul nangoo faj soxlaam ku ci am soxla ku nekk rek waa ji ngay xalaat am na ci ñoo xam ne sax dañuy créer ay maladie feebar yónnee oote wax ne dañoo feebar ñu am problème ordinance nañ leen ko yónni am ñoo xam ne dañuy rey sa ay seen ay mbokk créé ay dëj pour rek mën a lekk li nga xam ne mooy xaalisu ki nga xam ne mooy immigré bi am ci ñoo xam ne duñ créé ordonnance duñ créé dëj duñ créé mariage waaye xam nga lan la ñuy def dañ lay créé loo xam ne wan la ne yoon nee ñu dimbal la nga mën a def investissement pour nga mën a réussir parce que soo nekkee foofu war nga am kër war nga samp kër war nga def lii war nga def laa ba nga gëm waa ji am na terrain bu ñuy jaay fii am na kër gu ñuy jaay fii yónneel pour ñu jëndal la ko wala nga dem ba sax yow boo waxee ak ñoom ba dugg ak ñoom ci loolu ñu ubbi la porte yoo xam ne yow sa gë sa gëm-gëm ak sa gis-gis yépp mooy fexe rek yónnee pour ñu mën la defaral loolu nga xam ne moom mooy sa yaakaar jooju noonu ñi ci gën a bari seeni mbokk ñoo leen di rey da gis nga yónnee seen nijaay xaalis bi nga koy yónnee mu jël xaalis ba yëpp lekk ko wala mu takkee ko jabar wala mu àggalee ko këram wala mu defee ko leneen am nag loo xam ne ci nit ki nga xam ne moo nekk bitim réew am na loo xam ne waru ko parce que temps bi yàggul jàngaluma kenn nay mais damay jàngale damay fàttali ki nga xam ne mu ngi tabax abaniram wan ko ne ko dafa am temps boo xam ne ci nga war a fermer say porte am temps boo xam ne ci nga war a ubbi li nga xam ne mooy sa ay porte soo déparé rek ubbi say porte doo mës a arrivé jamais jamais jamais jamais nit ki nag su fekkee ne nag yàlla dogal na nga dem bitim réew boo demee bitim réew nga nekk foofu di liggéey di am sa wërsëg sa alal danga ko war a xaaj ñetti xaaj benn bi mooy li nga war a nekkee ca réew ma nga xam ne danga nga war a fay impo yu fa nekk nga war a fay location da nga war a fay ndox courant le et beneen bi ci topp mooy danga nga war a épargne pour li nga xam ne moo la tax a dem bitim réew waaye épargne boobu ngay épargne bul def benn investissement lu dul danga teew beneen bi ci topp mooy bi gën a ndaw soo ko defee trois parts benn bi na nekk cinquante pour cent mooy bi ngay denc pour sa avenir beneen bi na nekk vingt cinq pour cent mooy li ngay war a dépenser Europe beneen bi ci topp na nekk vingt cinq pour cent mooy li nga xam ne moom nga war a dimbale yeneen yi nga xam ne ñu ngi lay yaa leen war a jox say sa yaay yaa ko war a jox mu lekk sa papa yaa ko war a jox mu lekk ci suñ aada réew. sa li nga xam ne moom mooy sa jabar yaa ko war a dundal say doom yaa leen war a yor ñoom mën nañu jël vingt cinq pour cent bi léegi nag su fekkee yàlla dogal na ci vingt cinq pour cent boobu li ngay liggéey dépense bi ngay def yónnee ko Sénégal ëpp na des na da koy ajouter encore ci li nga xam ne mooy cinquante pour cent yi nga xam ne moom nga jëloon denc ko mais nga planifier sa avenir ci diir bu gàtt ndax su fekkee yàlla may na la xaalis xaalis boobu da nga ko war a investir man nag li ma gis ci immigré yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu koy def vraiment yërëm naa leen lool lool lool waaye gis naa ne ñoom ñu ci gën a bari seen gis-gis soriwut lu tax seen gis-gis soriwut xasuma leen de parce que dama gis ni ñuy doxalee te damay jaxasoo ñoom di wax ak ñoom ki ci gën a gën a gën a gën a gën a réussir gën cee rëy bëgg-bëgg mooy que ci tabax kër am oto loolu jarul gàddaay sa réew bu dee loolu rek a tax yéen tukki ñëw leen Sénégal ngeen ñib si tabax kër am oto jaaykate jaaykate dàll yi jaaykate banaana yi wi ci réew mi ñu ngi koy am dépense pour loo añ loo reer loo nekk jaaykate banaana yaa ngi koy am fii ci réew mi jarul gàddaay ci réew man de bu fekkee ne maa ngi dem bay bay gàddaay pour dem pour dem bitim réew pour liggéey pour am dara dafay am lu tax ma def ma di ko def maanaam daf koy jar mu nekk loo xam ne c'est des milliards loo xam ne ci nga mën a ci lañ ci moo jar nga dem pour gàddaay sa réew dem mais su fekkee ne yow boo demee sa réew boo gàddaayee sa réew da ngay dem biti réew su weer dee bu ñu la fayee loolu dundee sax doo ko am mieux vaut bàyyi réew moomu nga ñib si sa réew say mbokk gis la sa famille gis la say doom gis la nga ñëw ci sa wetu sa wetu njaboot nga nga fondewaat beneen foyer beneen euh, euh, euh, tabaxaat beneen yoon wu bees ci sa bopp parce que c'est am na ñu bëri ñu bëri ñu bëri ñàkk nañ seen avenir parce que dañ leen a gëmloo ne yéen a bitim réew yéen lañ yaakaar indi leen ay sac ay bañ gàcce ay kersa yooyu yëpp tax nañu lang waaye yàlla xam na ne fañ nekk ca bitim réew seeni ay morom ñoo leen di may luñ lekk seeni ay morom ñoo leen di may fuñ fanaan si mbedd mi la ñuy fanaan dañuy xëy buñ liggéeyee tey toog ñetti weer duñ liggéey seddaay bi la ñuy moo leen da leen di bëgg rey te loolu dara dara dara jaru ko ci kaw suuf ñi ngay ñi ngay xalaat naan suma ñibbee dinañ wax ne doog naa juróomi at àll aw ma dara ñi ngay xalaat ne suma ñibbee toog naa fukki at awma dara gis nga ñooñu ñoo la gën a ndóol ñoo la gën a sonn hmm? ñoo la gën a dellu ginnaaw wa bu leen sax xool bu leen sax déglu bu leen bàyyi xel parce li nga nar a ñàkk ñu ne la amoo dara ñib si loxo loxoy neen moo ko gën a sedd parce que imaginer nga nekk gor nekk julit nekk ndaw sama moroomu góor di la may di la jëppi amoo benn solution ci loolu mu ngi la naqari mënoo koo faj yaa yaa yaa xeete nga ñibbi si sa réew billet bi nga dagg xaalis bi nga investir bu ko xool parce que yàlla dogal na li muy dogal ba pare te tàmbaliwaat olof di wax ne xaar dawul dafa uti doole dëgg-dëgg loolu képp koo xam ne yaa ngi nekk bitim réew war na laa war nga koo mën am na ñu bari ñu nekk bitim réew ñib si Sénégal man la jokkool di ma sant ay ñaan ñaanal ma lii ñaanal ma ci lii ñaanal ma ci lii wax ma seen problème ma ne la yow doo ku ñuy ñaanal foofu sa toogaay foofaa jeex ñib sil ci réew mi parce que yónnee sa alal ma di la defal ñaan lekk sa xaalis la ak perte sa tànk parce que condition yi nga nekkee ci réew mi foofu ku la dig na mën na laa ñaanal ba nga génn ci situation yooyu la ca war doo ko def te loo ko yónnee mu nekk perte ci yow li ma lay digal la nga nar a def foofu boo ko defee boo ko defee ñib si ci réew mi amaat départ ñu ñaanal la yàlla nga am li nga soxla fii ci réew mi nit dafa nekk koo xam ne nit dafa nekk koo xam ne euh, wërsëgam yàlla daf koo bind waaye daf ko utalul benn limite fi nga nekk nag di fa góorlu yàlla di la fa wërsëgal ngay wërsa am ta taraanga ba yàgg ngay dem di dem di dem ba yàgg nga gis di dem di dem di dem ba nga mujj di ñaan di lekk dëgg dëgg soo amee xel war ngaa mën a takk say bagage delluwaat sa réew xam ne échec ñëw na waaye waroo ñàkk espoir waroo ñàkk yaakaar li nga war a def mooy góor góorluwaat tàmbaliwaat ndax tàmbali du wees mukk nit fekk mu ngi dund rek mu ngi am yaakaar ci boppam su fekkee ne nag yàlla dogal na nga nekk koo xam ne da ngay liggéey di am xaalis xaalis bi nga xam ne moom ngay am soo ko liggéeyee ba yàlla dogal nga am ko waroo koo jox kenn kenn kenn kenn du question de da ngay nay wala wala dara mais danga am da nga am avenir boo xam ne soo jëlee xaalis boobu épargne ko ba ñëpp si Sénégal ubbi sa société tabax sa ay mbirit contrôler ko sa bopp teg ko ci norme yi war a nekk di nga réussir képp koo waroon na dimbale di nga ko dimbale te dara du wees te bu fekkee da nga am sa rak wala nga am sa mag bu jigéen nga waroon koo dimbale temps bi ngay épargner di dajale pour am départ yàlla dogal mu nekk fi màgget wala mu génn àdduna bu fi bàyyee doom nga dimbale ko dimbale ko du wees wala nga jàngal ko ay fatiha ak salaatu fatiha ñaanal ko ko wala nga jàngal ko ay lixlaas ñaanal ko mais c'est pas forcé que ne yow soo liggéeyee rek commencé am dara rek da nga war a commencé joxe ci koo xam ne da nga nekk bitim réew laa wax su dee ku nekk ci réew mi nag mën nga maye mën nga dimbalaate mais nga épargne pour li nga mën a loo xam ne di nga mën a am fond de roulement pour mën a continuer sa avenir dafa am ay dafa am ay jaayante yu def ba tukki kooku nag warul nekk koo xam ne lu mu lu mu liggéey rek yónnee ko sa sa bàjjan dafa feebar sa nijaay dafa feebar sa tante lañuy la ñuy nàngam sa rakk bi kat dañ koy muur mu yi sa sa sa jabaru frère bi kat dafa feebar sa jabaru nijaay bi kat dafa lii loolu moo leen di rey te loolu fii ba ba ngeen di màgget loolu du fa mas a jeex mukk mukk mukk mukk ndax doomu aadama yi seen bëgg-bëgg du jeex pour ngeen mën a réussir nag loolu il faut ngeen préparer ko ngeen préparer li nga xam ne mooy seen wàllu avenir ndax doomu aadama avenir am dafa lekk loo xam ne dafa dafa limité wu. nit ki nag su fekkee ne day góor góorlu am ay yéene yu baax yéene yu baax yooyu mu am waru ko waru ko bàyyi waaye na xam yan heure la ko war a réaliser parce que du ah du moment bu nekk rek nga war a nga war a nga war a def waaye du moment yëpp tamit ngay ñàkk def doomu aadama bi nga xam ne dafa bëgg a dara te moyens yi il faut mu mu mu mu fexe lu muy def pour. moyens yooyu mu mën a revenir pour mën a tabax li nga xam ne moom la bëgg a def moyens yooyu nag suy ñëw bu ñëw ñu jël mu dem beneen bu ñëw ñu jël mu dem du mës a revenir jamais te bu leen nax seen bopp mukk ci yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na yàlla daf ñu may xel ba pare jox ñu xam-xam lépp lu ñuy def ñu war ko ànd def avec suñu conscience tranquille nit ñi am na ñoo xam ne duñ dimbale kenn pour mu réussir heure boo taxawalee dara rek bañ gis ne lii commencé naa am njariñ nga gis ñu commencé wàlli si ah di la tudd ay bés di la di la di la yëkkati tay daraja di la wan sa juddu di la wan sa mbaax yooyu yëpp ay ay ay ay gal gal la yoo xam ne dañ la koy tegal sa kanam rek pour bañ nga dem yow yaa ko war a xam am na yeneen moodu moodu yoo xam ne nag ñoom kenn loru leen de ñoom ñoo lor seen bopp ñoom ñoo liggéey seen alal ba pare ñëw ci réew mi jënd seen juróomi mbubu yu rafet yu bees tàq wàcc ci réew mi ak seen juróomi daal chaque jour ñu sol benn bu bees def seen poos seen xaalis mbedd mu ñu romb bàyyi fa seen 20 mille seen benn 30 balaa ñuy ñibbi deux mois yi ñu fiy def balaa ñuy ñibbi hmm? nga gis ñu commencé dem ci boutique ba jox ma su ma yeggee ma yónnee. jàppale ma ci nangam su ma yeggee ma yónnee demal ca boutique ba su ma yeggee yónnee fekk mën naa ñàkk du question que da nga dem tukki ñëw Sénégal forcément danga war a mbóor mbokk yépp ku nekk nga jox ko dara li nga leen jox dërëm ñaar dërëm juróom ñaar dërëm ñaar dërëm yooyu loolu mooy sa avenir bi nga war a bi nga war a tekkee ji loolu noonu nga war a jël soo ñëwee nga dem nuyu ji leen nga am sa sa sa sa sa sa sa gëm-gëm nga dem nuyu ji leen salaamaaleykum say mbokk lañ mbokk du daw mbokkam suñu la bu ñu la comprendre wul yëpp tant pis loolu amul sens soo demee nga nuyoo ji suñu demee am ah, moom de ñëw na waaye rek ñëw ko loxoy neen indi am ah, moom de mu ngi ñëw de indi na loxoy nen loxoy neen da la indi nga tabax sa kër ba baax foofu sa njaboot dugal ci biir soo delluwaatee boo ñëwaatee nga tabax sa société ñooñu nga waroon a nuyu ji nga xam ne te ay 1000 francs nga leen na nar a jox nga jël seen doom dugal leen ci biir societé bi di leen fay salaire loolu moo ëpp njëriñ tuuf moo ëpp foofu moo ëpp njëriñ moo ëpp rendement waaye jël sa alal 20000 da ngay gis ñoo xam ne moodu moodu yoo xam ne bu ñu ñëw Sénégal 4 millions danañ ko indaale 4 millions ci réew mii ku ko am investir ci réew mi toog bàyyi bitim réew da ngay da nga ciy génn da ngay tekki. mais 4 millions yooyu bu ñu ko indee 2 mois lañuy def balaa mooy balaa 2 mois yi mat France jeex na nga delluwaat toogaat un an 12 mois nga nekkaat ko ci àll bi di daw sedd bi tool yi àll bi fu ne nga dugg marché bi ramas yi lu ne nga necc yooyu yëpp nga def ko ba pare amul fenn foo koy réaliser ji lu dul sol sa dàll wër vingt mille trente mille quarante mille cinquante mille ban njëriñ laam ñu ne ah moom kay moom jàmbaar la doomu diw ji kay ak a baax kooku kay bu ñëwee day may ñii day may ñaar day may yow kañ ngay tekki ah sa famille kañ la ñuy génn ci coono sa doom yi war a ñëw ëllëg naka la ngelan nga leen def réew mi nga nekk xolal xolal PIB hmm? PIB ñaata la ci immigration yi di dugal ci alal ay milliards lan nga gis ban rendement la am dara feeñul fenn doo gis dara lu taxaw ñu ne lii immigration bi moo ko moo ko moo ko fi def dara ñoom ñooy fay factures yi ñooy fay ndox yi ñooy fay courant yi ñooy fay kii sénégalais yi nekk fii noonu la ñuy def comme yéen sénégalais yi nekk fii dañuy fay courant dañuy fay ndox dañuy fay loolu mais yéen comme dangeen a génn dem bitim réew am na benn dokit bu ngeen dagg ci seen bopp pour seen réew loolu dangeen ko war a téye loolu da ngeen ko war a xam ñi fi nekk te nekk seen ay rakk waccee leen kër gi ñoom ñu débrouiller waaye su ngeen leen yónnee rek ngeen tayalloo leen su ngeen leen joxee rek ngeen tayalloo seen xalaat yi parce que doomu aadama buy dund foofu mu lekk foofu mu naan su ngeen leen dimbalewut ñoom dinañ dimbale seen bopp mais nag ci ay conditions que li ngay épargne soo paree boo ñëwee na nekk retour ci réew mi mais pas ngaa xaj leen ko ba pare nekk ko foofu di ko fa foyee waxuma loolu de. parce que man ki may conseiller mooy ki bëgg réussir tañ tañ tañ tañ wër ko ndomb kooku laay wax. parce que mën nga nekk Sénégal mën nga nekk bitim réew waa Sénégal wër la ndomb de te fekk ñu ngi Sénégal système bi ñu lay wëree ndomb nag mooy sa sa yaay laa sa baay laa sa nijaay laa sa tante laa sa yumpaañ laa sa yuy la yooyu lañ lay wëree ndomb yaay dañ koy teral baay dañ koy teral mais am na loo xam ne ci teraanga yaay ak baay. doom bi ji il faut mu am kattan pour mën ko defal baayam wala mu mën ko defal yaayam wala mu mën ko defal jarbaatam nit nag war na mën a dimbale képp ku mu tane waaye nit warta lor boppam warta def loo xam ne mënu ko yàlla sax ci boppam mi bind doomu aadama ah mu wax na na sax moom tegul benn bakkan lu mu mënut donc kon nit ki ci fekkee ne euh, yàlla wax na ci alquran laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha yàlla tegul benn bakkan lu dul lum attan lim ñu teg yëpp attan nañ ko lim lim liñ attan la ñu teg mais tegul benn yoon luñ attanul kon ñun nañ gën a bàyyiwaat xel suñ bopp nañ gën a delloosiwaat suñ xel te xam ne tubaab yi nga gis ñu ñuy ñu raw ñu dara raw taxul ñu raw ñu lu dul organisation ñun manque d'organisation tax na mënuñu réaliser dara. beneen bi ci topp nag loolu ma wax noonu ci wàllu immigration bi ñii nga xam ne dañuy yónnee seen alal ci réew mi te alal di ñuy yónnee duñ gis mukk ah pax soxla ba tax ñu yónnee alal ja soxla ba mës a faju te ñoom seen temps baa ngi dem ñu ngi màgget amuñ dara lu dul kër ak oto lañ am suñ ñibbisee bitim réew jugee fa suñ ñëwee dafay mel ni mosuñoo génn réew mi buñ fi defoon fanweeri at mi dafay mel ni mosuñoo génn réew mi. donc nit ki nag war na mën a su demee bitim réew ba ñibbisi si Sénégal nit ñi war nañoo gis ci moom ay jeexit yoo xam ne danañ xam ne tukki am na njariñ danañ xam ne génn réew mi da abandonné sa réew am na njariñ waaye nekk nit bàyyi sa réew abandonné sa réew dem ñëw indiwoo dara ba pare perdre sa temps foofu loolu ku nekk war na ko wattandiku loolu nag laay wax ci wàllu li nga xam ne mooy côté investissement bi beneen bi ci topp mooy réalisation yi nit da ngay gis koo xam ne day liggéey alalam bu liggéey alalam joxe ko léegi soo ko joxee ne mankat bugguma temps bi dem parce que am naa xaalis léegi xaalis bi nga am yaa ngi bañ temps bi dem nga jël ko yónnee ko Sénégal pour ñu tabaxal la sa kër defar la say ay affaire pour boo ñëwee fekk kër gi pare nga ñëw doo fekk tus mais loolu ñetti perte la li gën ci yow mooy soo liggéeyee sa xaalis ba pare bul ko yónnee kenn ubbil sa compte nga def ko ci soo ñëwee Sénégal nga sol sa dàll nga dem jëndi terrain nga fa def fondation su fekkee ne temps bi mayu la nga tabax kër gi ba mu pare ci benn weer bi nga fi nekk wala ñaari weer nga fi nekk nga def fondation ñibbi wat soo ñibbi jee soo ñëwaatee beneen at nga ñëw nga tabax ba mu raser soo delluwaatee boo dellu dellusiwaatee ñëw tabax bu pare këpp koo fi dénk sa xaalis mooy ñàkk nga ko tey boo xoolee ñiy dem bitim réew di yónnee seen alal pour ñu defaral leen fi liñ soxla su dee téeméeri nit ñooy yónni benn nit rek moo ci am sens daje koo xam ne lam bëgg danañ ko ko defal ñi ci des ñépp ay lay lañ leen di def ay tribunal la ñu mujjee ak ay police ak gendarmerie loolu li ko gën a sakkan mooy téye sa xaalis ci sa poos soo ñëwee sol sat am na si ñoo xam ne duñ la duñ yem ak yow foofu de xam nga ñuy def dañuy organiser fii ay ay societé wane ne dañuy jaay ay terrain wane ne ne am nañ ay terrain yu ñuy jaay ñëw bitim réew sol daal dàll fekk leen foofu ngeen nekk ñu leen di proposé ay teree ngeen jël seen alal dugal ko ci nga boo ñëwee Sénégal furaas loolu yépp li ko gën a sakkan xam nga perte benn moo ci gën a sakkan boo perte temps bi nga xam ne moom nga waroon a réaliser li nga bëgg def moo gën perte xaalis bi perte temps bi perte temps bi nga war a uti jiwaat xaalis bi parce que temps bi nga utee ut temps bi nga ut xaalis bi ba xaalis bi nekk xaalis temps de bu ko fàttee li nga waroon a jël xaalis bi investir ko temps boobu nga waroon a def réalisation yi loolu temps la perte temps boobu rek moo gën a sakkan ci yow nga nga jël temps boobu pour bañ a perte temps boobu ba tax nga yónnee sa xaalis ñu lekk ko léegi di nga perte temps boobu doo réaliser perte nga temps bi nga ut xaalis bi di nga demaat uti waat xaalis bi muy ñetti temps te loolu li ko gën a noppale mooy denc sa xaalis soo ñëwee même bu fekkee ne wax nañ ne defa fi tus de yow xam nga yàlla xam na doy na soo ñëwee nga toog jël sa temps nga xool fi la neex nga jënd fa terrain soo jëndee sa terrain nga tabax commencé su matul nga bàyyi ko fi dem soo dellusiwaatee ñëw ta taxaw leen tabax continuer nga prudent sàmmwante ak li nga xam ne mooy kaaraange yi nga xam ne moo war ci ko borom alal su bëggee alalam ñoŋ mu bañ a réer loolu soo ko defee kenn du la mën a turiyande kenn du la mën a nax parce que ki nga yaakaar ba tax nga jomaa saytaane mën na koo jàpp jaxase xelam mu jël sa alal lekk ko am gàcce seen mbokk gi yàqu seen kóllëre gi tas fekk dara waralu ko lu dut xaalis bi nga ko yónnee moo ko waral te mënoon naa ñàkk loolu laay wax pour ñu bàyyi ci xel ci wàllu émigration bi ñi nga xam ne nag mooy ñi nga ñi nekk euh, euh, foofu lang fa bañ a fa bañ ñibbisi am si ñoo xam ne dañuy jël seen jabar yóbbu leen bitim réew ñu nekk bitim réew ak ñoom bu ñu yeggee bitim réew rek trahir leen am na moodu moodu yu bëree bëree bëree bëri seen xel jaxasoo na seen yaakaar tas na seen xol neexatu découragé leen ci àddina parce que seeni jabar ñoo leen tas ñoo tas seen yaakaar seen jabar yee leen ñoo leen wor te loolu lu ñaaw la sénégalais comme yow di sa mbokk di sa mbokk nga nekk fii di sonn nekk fii di di di torox amoo dara amoo lenn mënoo am dara lu sotti nit ki gis la bëgg la am ci yow yaakaar takk la bëggal la boppam fob alalam def ci yow jël xaalisam paasal la bii indi la bitim réew nga ñëw foofu noonu yàlla dogal nga gis alale àddina rek fàtte kóllëre fàtte àllaaxira fàtte yàlla fàtte mbaax gi waaj def ci yow ak lum la mënti def ci naqar ak lum la mënti tooñ war ngaa sedd yàlla cër wala ngaa sédd démb cër waaye am na ñoo xam ne boo leen takkee ba yóbbu leen bitim réew buñ ne cëpp ci réew mi yow yaay njëkk a nekk seen noonu te loolu lu ñaaw la nit ki nga xam ne ba nga amul dara mënoo dara tekki woo dara soo lekkee moom la soo naanee moom la soo soo soo tëddee moom la foo dugg moom la nga xëy am ay xarit ñu naan la fii yaa fi tal sëy fii kana fi kenn sëyu fi sa waa ji dalay fatt fat mayu la nga noy bëggul nga réussir demal nga liggéeyi nga gis keneen ñëw sax beneen waaye ñëw sax imposé la xaalis nga sànni sa nit ki war ko wan ko ginnaaw dem ma ne loolu sénégalais bu ko def sa mbokk sénégalais war nga ñu ñun ñëpp war nga ñu ñun sénégal ñëpp te nga xam ne yaa ñu uutu waroon a uutu yaa waroon a uutu suñu yaay yi yaa waroon a uutu suñu sœur yi ci ci sëy bu baax <clears throat> yaa waroon a uutu suñu sœur yi ci exemple bu rafet tey tas nga yaakaaru famille bi tas nga yaakaaru mbokk gi ah, am na ci ñoo xam ne sax bu ñu ko defee seen yaay yi dañ lañ ciy faral man ñu bëri dañ may oo <coughs> Cheikh Omar di ma la ma defal ma ñaan parce que sama jabar dama ko indi ci réew mi lu ma defut ci moom amut indi naa fi frère indi naa lii tabaxal naa la seen kër keroog bu ma ko indee ci réew mi kër gi ma dëkk sax dafa ma koo génne loolu ñaaw na alalu àddina jaru ko am na ñoo xam ne seen yaay sax dañ leen ci faral seen goro yi seen jëkkër yi sax bu ñu ooyee seen famille oo seen papa yi sax da ngay dégg ñu ne ah ñu ne loolu nag suñu yoon newu ci parce que xale bi mu ngi dël xaalis di leen ko yónnee. loolu gor du ko def nit ku baax du def loolu loolu ñaaw na waxtu woo defee loolu alal joo mu ci mënti jëlee lu mu bëri bëri bëri lu mu neex neex neex soo sa woo tëddee te xalaat fi nga jëlee sa alal rek da nga xam ne yow war nga sa bopp war nga sa njaboot war nga sa ëllëg war nga sa àddina war nga sa àllaaxira kóllëre kenn du ko fecc nit nag mën na mer mën nga am sa jëkkër ngeen nekk ñàkk déggoo kenn werante wut na sëy day am neex day am naqari mais am na loo xam ne jaru ko dara jaru ko ci kaw suuf parce que da ngay dee da ngay màgget la tax nga war ko day jeex nga yàq aveniru nit ki yàq xolom dootu tax bëggati jigéen am na ci ay góor ñoo xam ne noonu lañ mel am na ci góor ñoo xam ne jigéen ñi ñoo leen di takk wala ñoo leen di fat ñu trahir leen wóor leen yàq seen àddina loolu dafa ñaaw ay sénégalais ngeen ay nit ngeen ñoo xam ne Sénégal def leen a yaakaar loolu nag la ca ëpp mooy jigéen ñi dem nañ ba moodu moodu amul benn moodu moodu bu bëggati yóbbu jabaram bitim réew tellement que boo yóbbee sa jabar soit góor nangu ko ci yow parce que loi yi nekk foofu bokkut ak suñu ay loi góor dañ ko fa néewal doole jigéen lañ fa jox doole mais bu leen fàtte ne doole ji mag ji mooy yàlla luñ la may may may may privilège foofu may la ko fa doole sa jëkkër néew ko fa doole bu mu tax mukk nga fàtte kóllëre gi nga seqoon ak yàlla bul fàtte bu mu tax mukk nga fàtte diine ji nga xam ne moom nga jébbalu woon mooy lislaam bi nga xam ne moom la takk ba tax say am seen diggante ñaar bu ko fàttee bu la benn doole may liberté ba nga dal ci kaw lislaam parce que dal ci sa kaw jëkkër mooy nga dal dal ci kaw lislaam wor sa jëkkër mooy nga wor lislaam war sa jëkkër mooy war sa famille war sa réew wor sa askan war sa xeet war sa jikkoy xeet sa sa jikkoy réew loolu ñaaw la te du benn sa jëkkër nga koy def de waaye bul fàtte ne mukk réew mi yëpp nga ko teg ndax da nga tax ku góor kooku dootu amate confiance ci benn jigéen nga seet yàlla nga rus yàlla nga sedd yàlla cër te ba léegi nag su fekkee loolu am na maa ngi lay ñaan man Cheikh Omar Diop nga walbatiku nga juboo ak sa jëkkër nga seet yàlla sa diggante ak sa jëkkër nga muñal ko parce que njaboot am na wala bëgg nga njaboot wala kóllëre am na wala démb amoon na loolu bu leen ko fàttee bu leen fàtte mukk bu leen mal xaalis rek àddina dafa bëri ay recette relation bu neex am am la jàmm xol bu neex am am la du xaalis rek mooy am am nit ñi léegi àddina bi toll na foo xam ne ku bu dul xaalis rek pour ñoom bànneex amul bonheur amul nit di nga am xaalis fekk doo am jàmm nit di nga ñàkk xaalis fekk yaa ngi ci sa jàmm loolu lu may fàttali wala lu may fàttali bitim réew waa bitim réew la li nga xam ne nag moom mooy ki nekk bitim réew mooy troisième point bi war a wàññeeku si waat ci réew mi sénégalais boo xam ne def nga 40 ans Europe man Cheikh omor Diop maa ngi lay ñaan nga wàññeeku nga ñiib si waat ci réew mi am na ñoo xam ne am nañ 40 ans Europe takk nañ fa jabar am nañ fa ay doom samp nañ fa ay kër ñooñu moom mënatuñu ñibbisi parce que seeni doom yi xamuñ Sénégal bu ñu doon ñibbisi tey seen doom yi fa lañ leen di bàyyi ñibbisi waat ci réew mi yooyu nag lu jaraw bàyyi xel la lu jara suuraale la ndax Sénégal gii yéen lañ ci yaakaar Sénégal gii yéen lañ ci xaar Sénégal gii li ci gën a gën a gën a gën a gën a am solo mooy ki dem bi bitim réew yàlla may ko mu liggéey mu préparé waat boppam dellusiwaat fii ci réew mi te nag maa ngi leen di wax ne Sénégal nekkatu Sénégal bu ngeen foogoon de Sénégalu tey bii nekkatu Sénégal bu njëkk ba Sénégalu tey yàlla def na fi barke yàlla def na fi naataange yàlla def na fi xéewal yàlla def na fi sutura li gën a riis ci àddina yàlla may nañu ko mooy jàmm jàmm mooy li gën a riis ci àddina yàlla may nañu ko beneen richesse bi si ak gaz yàlla may nañu ko kon ndóol moom ci Sénégal moom ak euh, euh, a faga jeex na ci réew mi kon ñi nga xam ne amuñu espoir ca bitim réew làmb nañ fu ne mu dëgër ñetti yoon la ñuy liggéey ci at mi wala benn yoon la ñuy liggéey ci at mi wala sax faruñu liggéey ñooñu ñëpp maa ngi leen di invité wax leen ne nañ waat ci réew mi ñu ñëwaat commencé waat ndax euh, dara. rawul àddina bi ñu nekk àddina la boo xam ne àddina bu dul jeex la ci ki doomu aadama bi parce que doomu aadama mënut te jeexal àddina nit ñi moom da ngay dund dee rek bàyyi fi àddina bi ba keroog àddina di tukki kon li ma leen di digal di leen ko fàttali mooy ñañ góorgóorlu ci seen ay investissement seen ay réalisation seen ay relation yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel nañ dimbale seen ay mbokk waaye nañ dimbale dimbale boo xam ne ñoom yéen ñi nekk foofu noonu du ngeen loru ndax nit ki su fekkee ne mu ngi liggéey liggéey boobu muy liggéey war na ci mën a tabax abaniiram nit ki mën na bon tey baax suba loolu yàqu dara pour pour tabax sa avenir parce que boo teelee baax rek fi nga bëgg a yegg doo fa dem kon ñu leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla waaye it di tëjee li nga xam ne mooy fàttali leen ne euh, liggéey mooy tax nga réussir seul le travail paye bu leen tayal mukk bu leen décourager mukk bu leen nayif bu leen sàggan bu leen bàyyi seen jabar yi nekk foofu bu leen xaddi bu leen bàyyi jàppale leen ngeen conseiller leen ngeen uuf leen jigéen ña fa nekk nañ góorgóorlu tamit yërëm seen ay jëkkër te jàppale leen te uuf leen njaboot ga fa nekk nga xam ni jikkoy tubaab ya lañ yor ngeen ñaan lu ñaan lu ci ñoom ngeen yar leen te leen ci découragé jamais su ngeen leen mën a invité yoo naxante ñoom bañ indi leen Afrique ñu gis seen cosaani ay maam dana am lu mu def ci ñoom loolu laa leen den dénk di jéggalu bu baax ci kàddu yi ndax am na ñoo xam ne li may wax dal na leen te sama ay yaay lañ am na ñoo xam ne li may wax dal na leen te seen sama ay baay lañ ñii sama ay mag lañ ñii sama ay rakk lañ. waaye lu ca mën a xew rek dama bëgg fàttali nit ñi ndax ar alquran moo nañu moo ñu wax ne fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma salika ala lahi basis wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ngeen jëf